jataayu fatwa yow mi am lu la ump ci sa wàllu diine jaaxle jeex na leeral fm jagleel na leen seen émission bi di alfatawa alfatawa di émission buy tontu seeni laaj yu jëm ci seen wàllu diine àllarba bu jot vingt et une heures ngeen ci ànd ak al oustaz abdallah baba dieng mu ci feggoo ak ak docteur mouhammad ahmad lo ak seen émission bi di alfatawa ak laaj jëmale ko ci émission Fatawa mën nga koo bàyyi ci numéro bii 77 396 42 42 nga mën faa bàyyi sa laaj ci whatsapp bi. kumpa tàggalikoon ak yéen ci lu jëm ci seen wàllu diine. alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man mbokk auditeurs yi nga xam ni yéen a ngi ni topp ci seen émission alfatawa bi ngeen di ànd ak cheikhana docteur Mouhammad Ahmad Lo xafidahullahu wa raa tey ci àllarba ji fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru safar 1444 tombeeg fukki fan ak ñeent ci weeru septembre 2022 ngeen ñuy topp ci leer FM bi ci Louga wala keppaar ga ca Kaolack wala salaam ba ca Mbàkke wala leeral ba ca Ziguinchor wala leeral ba ca Podor moo xam ci bu mënti doon ci réseaux sociaux yi moo xam dermalo officiel la moo xam groupe soppe fatawa docteur Mouhamed Ahmed Lo moo xam dégg diine xam sa diine xam lu sa diine ak yeneen yëpp ci youtube beeg facebook beeg yeneen canal yëpp ñu ngeen di ziar di ngeen yàlla defal ñu tawfiq defal leen ko defal ko cheikhana docteur Mouhamed Ahmed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 cheikh bi kii nee na dafa am ay mbokk yoo xam ne ñu xamante la dëkk ci dëkk bi ñu ci nekk nag am na euh, wax dëgg yàlla ci ay jàkk yu ñu jullee nee ñu organiser tournoi football ay match yoo xam ne euh, équipe yi mooy mooy ñi ñi jullee ci jàkka sàngam seen équipe ñi jullee jàkka sàngam seen équipe après ñu def euh, tournoi football mu nekk benn benn nachaat benn kii ci ñoom Euh, benn barnaamij benn programme ci ñoom mu ni ndax loolu da leen di dugal ci bidaa wala ndax dagan na wala dago alhamdulilah jàkka day ab rolam ci euh, ab société euh, musulman war a feeñ ci lu baax lu nekk war na caa am jeexit yëmul rek ci jàkka ji ne daa war a am ay commission yoo xam ne ñooy doxal jàkka ji ci boppam euh, lu aju ca imaam yaag noddkat yaag setalkat yaag ña koy garde di ko aar yooyu yëpp ay yitte la yoo xam ne day delluwaat ci biir jàkka ji ci boppam ak ni ñuy organiser njàngale maag xutba yaag yooyu yëpp waaye waraat naa am beneen rôle nag ci biir société bi boo xam ne wàll social lay doon social nag bu ñëwee day yaatu lool lu aju ca setal quartier baag lu aju ca commission yoo xam ne ñooy am ay relation ak waa koñ bi di xamante ñoom di leen soññi ñuy teewe jullit mbooloo bi di teewe jullit ajjuma ji su amee jàmm ñu jàkka ji am participation ci jàmm joojee ka ko am ci këram ko amu naqaritam nekk noonu su ay ñagas-ñagas amee ci diggante nit ñu jàkka ji am rôle ci lu koy rataxal di defar daal kon nag dina sport dafa dem ba bokk ci dund bi te ndaw ñi bëgg ko lool ba nga xam ne daa nag mën na leen a dugal ci lu bare bari jàkka su loxoom nekkee ca loola dana ci indi ak jubbanti waaye ni ma ko waxee rek lu loxoy jàkka di nekk lu nekk da caa war a amu jeexit lu mel ne football su fekkee dañoo wax ne tournoi bi ñaari jàkkaa ko seq waa jàkka sàngam ak waa jàkka sàngam ñooy daje ca terrain sàngam tey di fa football sàllaaw danañ wattandiku lépp loo xam ne lu dul noonu la euh, bañ faa am jaxasoo ci góor jigéen du fa am ndax jàkka ja daa ñëw ngir jàngale nan la ñuy footballé Eh, sol ay kiloot yu gàtt yoo xam ne say pooj day feeñ du fa am dañuy wane ne colum waa jàkk nii la war a mel te it colum jullit sax nii la war a mel waxtu julli jot ñu continuer di football loolu du ko mën a am kon daal lépp xeet woo xam ne xeet wuy jiyoog chariatul islam la moom du fa am su boobaa dana am njariñ ndax lañ doon jublu ca football ba moom dana am waaye danañ ca dolli leneen mooy yee ña xamul woon ne ah ndeke kat kon football mën naa am ci ëpp jullit waaye suy am yi lay ame wallahu taala alam jërëjëf Cheikhana kii mi ngi tudd bakar di woote amerig nee na dafa am koo xam ni gan la ñëw fa ñu jiital ko pour mu jiite te moom mu war a wàññi nee na moom mu ni leen loolu daganul moom na topp ci ginnaaw su ko defee kenn ci ñun jiite su amee ñaar raaka moom bu ko neexee na sëlmal ñun ñu continuer nee na ña fa nekk ñëpp ni ko déedéet diine ji doo ci dem ak sam xel du noonu dagan na mu dem jiite moom bu sëlmalee ñun ñu continuer mu ne nag mu bëgg ci lu leer naññ loo xam ni dina ko mën a convaincre ndax la ko ñuy wax daal convaincre ko. alhamdulilah xam naa li dul leer foofu mooy. gan gu ñëw fekk ay nit yor seen jàkka di julli ñu ne ko faw da jiite loola moom lu mën a ñàkk la ala kulli xaal waaye gan googu it li mu bañ lu mën a nekk la maanaam su leen jiite woon te fekk moom daa war a wàññi su jullee ñaari rakka su sëlmalee dañuy jóg mott loolu simple la loo xam ne ak jooyoo amu ci ci borom xam-xam yi amma su fekkoon ne nag moom daa bàyyi imaam ji mu julli ji matal moom mu julli ci gannaawam su boobaa eh, ak juyoo am na ndax day continuer ba ànd ak moom ba kar muy sëlmal wala ndax sañ naa toog taaye sëlmal wala day toog taaye di ko xaar ba mu dikk ba agsi fa imam di taaya ngir sëlmal mu xaar ko ba ba sëlmal yetti wax la yoo leen lu ci nekk ay waroon xam wax nañ ko ñii nee nañ na ànd ak ba kero muy sëlmal sëñ te tàqalikoo ak moom ku mel ne ibn al-Mundir sax rahimahullah moom da ko tudd ne loolu ijmaa la waaye xam naa ne ijmaa ba am na damm-damm ndax am na waroon xam-xam yu wax leneen am na ñoo xam ne dañ ne bu fekkee ne daa nekk ci gannaaw imaam ji di matal te moom mu bëgg a wàññi su imaam jógee dem ci ñetteelu rakkaam rek moom day taay ba taayaam jeex mu daal di sëlmal ak julleem jeex loolu mbooloo wax na ko am na ñu ne déedéet sañ ko jëkk sëlmal imaam li def kay mooy na bàyyi imaam mu dem di àggale ñetteeli rakkaab ak ñeenteeli rakkaab moom mu toog di taaya bu taayaam jeexee it mu continue di ñaan rek ndax ku sa taaya jeex dangay ñaan su imaam delsee nag ba agsi fa muy taaya taayaam ju mujj mu ànd ak moom di taaya su sëlmalee mu daal di sëlmal yooyu yëpp lu ci ne ay waroomi xam-xam wax nañ ko waaye ala kulli xaal du lool yi mu wax mooy li gën a dëgër la gën a dëgër mooy li ko euh, waa jàkka jooju wax mooy su fekkee ne dafa jiite bu sëlmalee ñi ci def jóg mottali loolu moo gën a simple moo gën a yomb moo gën a dëgër ci wàllu fiq naam waffaqakum albaari jërëjëf cheikhana jazakum allahu xayra cheikh bi kii nee na xale bu jigéen boo xam ne dañ ko euh, dañ ko takk ki ko takk amagun sax at wala ay weer wala ay fan noonu la ko waxee nee na ñu tas ndax da ko war a delloo canam su fekkee da ko war a delloo canam mu ni loolu fukk lislaam yaxale alhamdulilah kim siqal ñu may ko ko ay fan mu tàggoog moom foofa la ñuy jëkka laaj mooy ndax seq nañ dara wala sequñu ko su fekkee xas nañ seq dara moom idda war na ko ñaareel ba eh, can giñ ko joxoon it moo ko moom la ca mooy fase ga ci kan la jóge ndax ku jigéen ki moo ñaan baat ñu may ko ko wala ku góor ki moo jékki-jékki wocc ko su fekkee ku jigéen ki moo ñaan baat tey ku góor ki bu ko neexee mu laaj ak canam ñu delloo ko ko mu door ko fase su fekkee ku góor kee jékki-jékki fase ko nag kenn du wax ne des koy delloo ak can wallahu taala alam jërëjëf cheikhana barakallahu fikum cheikh bi kii nee na moom li muy laaj mooy muy dénkaane bank banque di jël ci moom benn intérêt maanaam muy bay ci xaalisam ci banque banque di jël ci moom euh, di am lu mu koy teq mu ni ndax loolu dina dagan wala déet moom demu fa lekk waaye dafa dem teg fa xaalisam ñoom ci jël euh, dara mu ni ndax loolu dagan na wala déet alhamdulilah opération yi nekk ci biir banque te bari lool damay faral di wax ne boo bëggee xam ndax opération bi dagan na wala daganut da nga fay jële banque ba teg fa nit xool ba xam bu doon nit lool dana daganam ndét xeeti compte yi daf ci am ay compte courant yoo xam ne bokkul ak compte épargne yi nga xam ne dañ lay dencal sa xaalis di ca liggéey di jël ay intérêt di ko ca teg loola mooy compte bi nga xam ne day am intérêt bancaire ñu lay wax ne intérêt boobu bul ko lekk waaye bul ko bàyyi ci banque ba waaye yeneen compte courant yi am na ci yoo xam ne buñ la ko dencalee ñoom day am lu ñuy jële ci sa alal loola nag dañ laa dencal sa alal ngay fay maanaam da nga leen ko dénk ñu dencal la ko gardeel la ko garanteel la ko bab sàcc du ko yóbbu ak lakk mënu koo lakk saa boo ko soxlaa boo dikkee ñu jox la ko kon am na service bu ñu lay defal boo xam ne bu yeyoo ak pay la la ñu jële ci yow te muy lu tuuti loola foofu rek lay dugg ak pay lay doon bu daal di dagan ngi mel ne rek nit koo woon kaay ma dénk la sama cinq cent mille francs yii nga dencal ma ko te aar ko te garanti ko ba bu ci dara sikkee nag yaa may fay mu ne laa ah, loolu de mën naa ko waaye nag weer wone ne da ngay joxe cinq mille francs nga ne ko garaawul nañ ko def noonu su boobaa cinq mille francs yooyu muy lekk lu dagan ci moom la ndax ab service la la defal bu la ko jaral te service boobee dagan na wallahu taala alam waffaqakum allah jërëjëf cheikhana cheikh bi kii nee na jigéen joo xam ni dafa gis baax te moom ci kaamil rek lay jàngi ndax dina dagal mu ko ne di ci kaamil bi mu laajaat mu ni jigéen joo xam ni dafa ñëw umra te li mu waroon def presque une semaine la ñeenti fan ya mu def ko Médine juróomeelu fan ba ba muy dem Màkka pour umra ji mu gis mbaax te baaxam juróomi fan lay doon kon dina ñibbi fekk mu ngi gis mbaax nee na kooku nu muy euh, defe umraam ndax xam na ni su fi doon nekk lu bari dina def lépp ba mu des euh, tawaaf bi après mu dem tawaaf mu jeex waaye moom buy ñibbi dina fekk ba léegi mi ngi gis mbaax mu ne loolu daal jaaxal na ko euh, mu koy jooy guddi ak bëccëg bëgg cee xam euh, ban atte la ci am alhamdulilah xam naa loolu yi ko gaar day muy gis baaxam te fekk tawaafagul kooku moom du mën a tawaaf te fekk mi ngi gis baax ala kulli xaal waroom xam-xam yi nga xam ne dañuy wax sax ne ku tojle mën ngaa tawaaf muy lenn ci borom xam-xam yi mel ne ngërub Abu Xanifa cheikh al islam ibnu taymiya dëgëral ko cheikh Mouhamad ibnu Usaymin di ci ubbee muy ku tojle am toj mu ndaw maanaam kuy ku jàpp ba àggal sam jàpp toj ñoom nee nañ jëru ngay génn di dem di jàpp waa di del si di tawaaf waaye mën ngaa continuer sa tawaaf te du yàqu ngir ñàkk am dalil bu wér cëng leer nañ buy wane ne euh, kooka euh, jàppiwaat da koy war amma nag euh, régal moom ku ko gis wala janaaba muy toj mu mag kooku ñoom borom xam-xam yi juyoo wuñ ci ne mënta tawaaf ndax dalil yu wér ceng te leer yoo xam ne dafa jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam comme lim ne woon Aïcha mën ngaa def mboolem li ngay def ci ay manasik ba mu des tawaaf doo ko mën a def kooku moom dafa leer nañ ni kon nag jarul muy continuer di jooy ginnaaw loola weesu na lañ koy wax rek mooy umra ba moom su fekkee ne nit ki loolu da koo gaar ci wàllu orientation nga xam ne su fi toogee ba set dana fekk vol bi passé bi mu war a ñibbee dañ koy wax ne su fekkee ne day mën na prolonger waxtu wi mu war a ñibbee maanaam yokk ko toog fa ba set dem dafi too dafi omraam su boobaa loola mooy doon la gën ca moom su fekkee loola munta nekk nag nga xam ne ñibbi doom na fa sës te tawaaful kon na jéema sant yàlla rek ndax ñëw na ba foofu te yéene woon na umra te yàlla dama koy ay yéene waaye saa bu ma nee si waat rek mu del si tax kuy kuy armal ku nekk ci aj wala ci umra dañuy bëgg ngay wax ne fa in xabasani xaabisun fa ma xilli xaytu xabastani su fekkee ne am na nag lu ma gaar ba tëj ma ba suma umra munta àgg su boobaa fa may summi koo rek mooy fa nga ma tëje boroomam lay waxal loolu su ko nit ki waxee su ko defee bu ko loola gaaree mën naa daal di def ixlaal muy solaat ay yéreem te jenn deret du ko war wala dara waaye nag dana mën a ñibbi ba yeneen jëmmi jamono mu del siwaat door a umra naam jërëjëf cheikhana macha allah cheikh bi ne kii nee na dafay laaj ñoom fee ñu nekk ci bitim réew yeesa dangay am liggéey boo xam ne yow yaay togg yàpp mbaam bi yàpp mbaam xuux bi yaa koy togg euh, pour euh, ñi nga xam ne dunay jullit di ko jënd mu ni ndax dina dagan cib jullit muy togg yàpp mbaam xuux di ko tegal euh, ñu dul jullit ñu koy lekk ndax liggéey boobu dina dagan wala déet alhamdulilah mbaam xuux daganul ci ab jullit mu di ko lekk daganul ci moom itam mu di ko moom kon sañuta yor passion boo xam ne day togg yàpp mbaam xuux di ko jaay ñedul jullit loolu sañu ko ndax sañu ko moom dafa am yu xaraam yoo xam ne dafa xaraam ñu jëfandikoo ko waaye xaraamul ñu moom ko lu mel ni or ci góor dafa xaraam mu takk ko waaye kenn xaraamulut mu moom ko waaye am na yoo xam ne nag des koo mëntoo lekk mëni su ko moom itam loolu yàpp mbaam xuux ci la bokk mu des nag su fekkoon ne yeneen jëm moo yor ab restaurant boo xam ne yàpp ya muy togg yàpp mbaam a nga ca ñu jël ko fa moom muy togg wala muy servir loolu laay faral di wax ne bokkul ci liggéey yi gën a sell waaye dalil bu koy xaraamal nag awma ko moo tax que liggéey ci wàllu orientation dañ koy faral di wax ne nay jéem a gëstu di wut feneen gën a sell foofa ñoo xam ne jaay ñu yàpp mbaam wallahu taala alam waffaqakum allah jërëjëf cheikh na cheikh bi ki nee na dafa am soxna soo xam ni dafa am soxna soo xam ni mënul am doom ñu jël ma nuyu boroom këram defal ko ci beneen euh, jigéen mu ne doom jooju juddu kan la ñuy jàpp ne mooy yaayam kan la ñuy jàpp ne mooy yaayam mu ne tamit ndax jëf jooju ñu jëf dagan na wala daganul. alhamdulilah defe naa ne laaj bi Cheikh Abdallah bu fekkee noonu la tëddee loolu moom du dagan maanaam jël man niyu borom kër bi def ko ci yeneen jigéen. loola day xaraam ndax euh, mu ngi mel ne rek mu dem sëy sëy geneen jigéen wutewuñ te it loolu waruñoo laaj sax kuy yaayam ndax jabaram ji mënta am doom moom yoonam nekku ci nii laaj bi tëddee noonu Cheikh a nii nga ko jànge day mel ne jabaram lii moom yoonam nekku ci dañoo jël màndiwum ku góor ki rek tam posé ko ci ku jigéen ka mu daal di ëmb soo loola doom ja moom ñoom ñaar ñoo ko jur mu daal di nekk doomi njaalo wala kulli xaal li dagan mooy waa ji ci boppam xëy na ñoom ñaar am na ci koo xam ne am na ayib gi ne ci moom ba tax lii jóge ci ku góor ki bu dee dox jëm ca lay war a tax ku jigéen ka tollu diggante du fa àgg loola yoon wu jafe mën na koo indi boo xam ne daane ci jigéen ji mu yoon wu sot wala mu nekk ne yi dox di dem ca doon ay ndundat yu jóge ci ku góor ki ñoo néew doole ba suñuy dox bala ñoo àgg euh, faf wàccub liggéey ci yoon wi su fekkee ne euh, lu mel noonu moo am mën nañoo jël lañuy ñuy tudde booye ba muy lay nekk ci ku jigéen ka te doon ab nen nga xam ne loolu lañuy ñuy pikir ëmb di am daal di jël ndoxum ku góor ki euh, su ko defee dugal leen feneen foo xam ne ab climat lay doon boo xam ne du nekk climat nit moo xam lu mu doon nag ñii ay on boobu lañ koy tudde wala leneen muy ab lu mel ne tuyau boo xam ne dañ ko koy placé ba mu xaw màgg ñu door koo jël opéré yaay ji delloo ko ci biir bi wala su fekkee ne mën nañoo opéré ku jigéen ki jël ndoxam ku góor ki e, àggale ko ca nen ba ëmb daal di am ñu delloowaat loola su mënee amit loolu dara du ca nekk la dul dagan daal mooy ñu jël ndoxum góor gu nekk ab jàmbur def ko ci jigéen joo xam ne ab jàmbur la wala biñ defaree nen boobu ba pikir ko ba noppi ñu jël ko dem peese ko ci jë foose ko ci biirub jeneen jigéen su boobaa loolu itam du dagan ndax la chaque ne deretam moo koy dundal euh, te réew yi ko daganal indi na ay coow yu bare bare bare ak i xuloo ak i demi tribunal yu dul jeex dafay am jigéen ñoo xam ne dañ leen koy ëmbal bañ toll ci war a am doom jékki-jékki réer ñu di leen wër kenn du leen gis am ñoo xam ne dañuy jur ba noppi ne sama dooma lànk euh, coow la jëm kaw ala kulli xaal euh, tomb boobu moom daganul ci chariatul islam wallahu taala alam jërëjëf cheikhana jazakumullahu xayran cheikh bi soxna si nee na moom mi ngi France nee na amoon na or boo xam ne def àggoon na ci deux cent cinquante grammes waaye nee na mu bëggoon lépp xaalis mu jël or bi yóbbu ko ci euh, kii municipal bi xam naa daal fu ñu koy joxe la ñu lebal leen nee na mu bàyyi ko fa mu ni su fa amee at or boobu da caa war a génn azaka wala déet alhamdulilah soxna soosi su fekkee dégg nañ li mu wax mooy dafa am ab or dem tayle ko or ba yàgg fa ba am fa lu mat at te na ne or boobu mat na euh, zakat war na caa génn euh, kon yore na bor am na alal dañuy xool ndax bor bi muy fay fay gi dafa teew walla déet su fekkee fay gi dafa teew te mënu koo fayee ci leneen lu dul ci or bi dañ naan ko kon jaayal sa or bi fay sa bor bi su jaayee or ba fay bor ba ñu xool li des ci or bi ndax matati na nisaab wala déet su fekkee mat na ko mu daal koy asakaal su fekkee matatu ko mu xam ne kon asaka da ko waru noonu rek lay tëddee wallahu taala a'lam barakallahu fiikum jërëjëf cheikhana cheikh bi kii nee na ginnaaw takkusaan ginnaaw takkusaan wala bu ñu bu timis di waajo jot nee na saa yu fa duggee ci jàkka ji ndax dafa war a def tahiyatul masjid wala déet alhamdulillah yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa wax ne ida daxala axadukum almasjida fala yajlis xatta yusalli rakatayn su kenn ci yéen duggee ci jàkka bu mu toog mukk lu dul mu julli ñaari rakka loolu mooy taxiyatul masjid muy jàkka ku dugg ci jàkka fas yéenee toog da ngaa war a julli ñaari rakka waxtu yëpp yëpp la nag ba mu des rek jamono yi nga xam ne ci la jant bi di fenk ci boppam jamono juróomi minute yi nu nekk nga xam ne ci la jant bi fenk te noppee gut foofu kenn mënu faa julli dara bu jant bi tolloo ci diggu bopp li ñuy tudd commencement shawal ba ba muy dox ab diir diggante boobu kenn mënu fee julli jamono yi jant bi di so juróomi minute yooyu yi nga xam ne dafa toll ci di coucher di daanu foofu mënees faa julli waxtu yooyu dañoo tere ku fa julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na waxtu yooyu ku fa julli wala ku fa rob ab néew lu dul loola nag su fekkee julli tahiyatul masjid ñëw na des koy julli su fekkee ne ab néew war nañ koo rob dañ koy rob comme def yetti waxtu yooyu rek wallahu taala alam jërëjëf cheikhana jazakumullahu xayra cheikh bi kii nee na dafa am ay euh, kër yu ñuy jaay dañ koy leble ca boori Bambilor nee na da ñëw nga euh, signé euh, contrat yi après nag nga war a fay te moom nee na contractuel la nekkul daal ku yore bu kii muy doon xool nag fan la mën a lebe te du am riba banque yeeg ji demee noonu mu ni nu muy def alhamdulilah moo kay banque yi day am na ci yoo xam ne danañ di jëfandikoo li ñu tuddee almurabaha su fekkee ne danga nga am sa terrain bëgg koo tabax te am nga ci ay garantie loo xam ne mën naa doy bank ba ba tax mu wóolu la mën nañ laa tabaxal plan ba nga leen jox su ko defee nag buñ wëlbatikoo facturé la lañ lay laaj ñoom ñoo koy xam ngeen bokk dëppoo ca wala ñoo tàmbalee tabax su ko defee nga di leen ci ab diir ba coro muy mat loola moom su boobaa day dagan li dul dagan rek sa digganteeg banque wala sa digganteeg keneen mooy yëkkati ab xaalis lebal la ne la demal tabax yi booy fay nag danga ma ciy tegal nangam su loolu amee rek daganatul wallahu taala alam jazakumullahu xayra barakallahu fikum cheikhana cheikh bi kii nee na suñu aada fii de mooy ku am ay seex yu góor da nga koy tudd xasan ak xuseyn bu dee ay seex yu jigéen nga tudd ko aadama ak awa mu ne est dina dagan moom su amee ay seex mu tudd ko yeneen tur mu mel ne abdullah ak muhammad wala fatima ak roqaya yu demee noonu wala day kon ne rek ci aada bi alhamdulillah ok ki am ay seex kay mën nga leen a tànnal turu rafet bu mu mën a doon moom sax àtte na bi mu waxee ne loolu aada la nee na aada la ci ñoom ñu di leen tudde Xasan ak Xuseyn wala Adama ak Awa loolu aada la rek waaye nekkul sharia ñu bari sax nag dañoo jàpp ne Xasan ak Xuseyn dañoo nekkoon ay seex moo tax ñu di leen tudde seeni seex te fekk nekkuñu ay seex Xasan mooy mag Xuseyn mooy rakkam maanaam ñu woon benn ëmb mukk waaye mag ak rakk lañu woon ala kulli xaal tudde leen ay cheikh dagan na waaye tudde leen leneen itam dagan na bu la neexee nga keneen ki nga ko beneen tur wa ca loola dara du ca nekk wallahu taala alam jërëjëf cheikhana jazakumullahu xayran cheikh bi soxna si nee na moom day diggante bi ak bi ñuy tàmbali julli am na fa diggante bu yaatu boo xam ne daal fonk lu woon julli daawul woon julli wala bu julleet respecté wu ko mu ne yooyu ni muy def da koy fay wala ndax day dégg yeesa am ñoo xam dañ naan ko dangay ngay fay am ñoo xam dañ naan ko déedéet jéggalul rek mu jaxasoo daal bëgg xam lu ci leer lu ciy dëgg ci sharia alhamdulilah ñu ngi wax ne bi mu masoore ak bi mu julli dafa am ab diggante boo xam ne daawu fi julli xam naa li ñuy njëkk a xamle foofu rek mooy julli moom jaaduwul ñu xaar ba majeur door koo tàmbalee def yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne muruhum bisalaati li sab'in li ashr nee na gone amee juróom at leen leen julli ku ca dem ba am fukki at nag mu julliwut na la jaral sax duma ko mu julli kon julli moom santaane nañu julli ko tënkuwul ci nit ki mat na mu kàllaf su matagul su masoragut it dañ ko koy digal di ko ca duma sax nag bu lànkee jaamu yàlla rek lañ xam ci jaamu yàlla yi yitte ji àgg foofu nga xam ne ku nekkut mu kàllaf itam am na fuñ la koy digale foo xam ne boo gàntoo am na luñ lay teg ci xeeti tegandaay kon loolu yi mu jekki ba majeur door a tàmbali di xalaata julli loolu ak càggante la waxuma laak nag mu toogaat nag ab diir gannaaw bu majeure door a walbatiku nag di julli waaye ala kulli xaal na sant yàlla ginnaaw mi ngi julli am na ñoo xam ne jaar nañ ci yooy yëpp te teewul ñu continuer lànk ba ñu julli kon santal yàlla ci julli bi julli bari say naafil la bari looy jégglu ndax li la faat ci ay julli waaye walbati ko di ko fayaat moom loolu munta nekk te it sharia sax santaane wu ko nag ci lu wér te wér kon da ngay jaamu yàlla di bari ay la di bari looy jégglu sa borom tabaraka wa taala ci càggante yi nga xam ne gaar na la naam macha allah jazakum allahu xayra baraka allahu fiikum cheikhana wa waffaqakum lima fihi alxayra wassalah kon mbokk auditeurs yi fii la ñuy taxawandi ci suñu fatawa ba beneen ay bis wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh